asalaamaaleykum gars maa ngi leen di nuyu di leen dalal ak jàmm Sen Sport 221 The Best Sport News Channel Pape Abou Cissé l'international sénégalais toll ci 25 ans jamono yi kayiti xibaar yi fesal nañu ne mu ngi ci bëtu club bii di 3 3 nag benn club la bu nekk ci France monte ci li nga xamante ne mooy Ligue 1 française ni ki ren jii maanaam ren jii la war a ci li nga xamante ne mooy Ligue 1 bi muy première division bi jamono yi nag nga xamante ne mooy ay renfort ngir renforcer li nga xamante ne mooy secteur défensif bi ki nga xamante ni nag moom la ñu teg bët mooy ki ni ñu leen ko waxee mooy kii di Pape Abou Cissé trois nag pare nañoo teg lu toll ci cinq millions d'euros ci taabal ji ngi war ko mën a signé Pape Abou nag nekk joueur boo xamante ni ki daaw sax foofu la nekkoon ci France waaye nag ci club bi nga xamante ni mooy AS Saint-Étienne dañu leen ko abaloon mu jógee fële ca Grèce ci club bi di Olympiakos gannaaw bi nga xamee ne delluwaat na nag foofu moom Pape Abou Cissé na dellu siwaat ci Ligue bi ci club bi nga xamante ni mooy 3 5 millions moom la ñu tegagum ci taabal ji di déglu ñi nga xamante ñoo Moussa Ndiaye moom nag gannaaw bi mu joué ñaari match ci club bi nga xamante ne mooy FC Barcelone maanaam équipe A bi delluwaat na ak ci li nga xamante ne mooy équipe B bi ñaari match yi nga xamante ne joué na ko sax mu def ci jaloor yu am solo wan na coach bi li nga xamante ne mooy talent am waaye nag ren jii bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi delluwaat na di entraîner ak équipe B te mën na fa jouer li nga xamante ni mooy saison bi ñu dëgmal waaye nag bu ngeen xamee ne ñi nga xamante ñoo di FC Barcelone Lego lek ñu am match yo xamanteni dañuy jël ay joueurs yo xamanteni ñu ngi joggé ci réserve bi muy équipe B bi dal di leen égal kon ki nga xamanteni moy Moussa Ndiaye man na am sens bok ci ñooñu nga xamanteni ci saison bi man nañ leen may sens ak équipe A bi ci li nga xamanteni moy La Liga Espanol. bitim rew ki nga xamanteni moy Mamadou Sakho dal dinay baye club bi nga xamanteni moy Crystal Palace nga mu nekkoon signé na ak ñi di wa Montpellier. moom ki nga xamante ne moom mooy Mamadou Sakho nag ancien joueur Liverpool ak Paris Saint-Germain avant muy dem foofu la ca Crystal Palace kii xibaar yi fesal nañu ne jamono yi dina jógee foofu la ci Angleterre gannaaw bi contrat am jeexee ak Crystal Palace daal dina signé librement ak club bii di Montpellier nekk ci Ligue 1 française Raphaël Varane moom transfert am ak Manchester United officiel na gannaaw bi nga xamee ni kii di xibaar fesal nañu ne ñii di waa Real Madrid sax bind nañu seen di fesal ne ki nga xamante ne mooy Raphaël Varane nekkatul joueur Real Madrid waaye daal dinay dem fële nga xamante ni mooy Manchester United kayiti xibaar yi fesal nañu ba tey ne ki nga xamante mooy Raphaël Varane donte ne dal dinay signé ak Manchester United amagul dara loo xamante ne jamono yi mën nañu ko fesal ci mbir moom maanaam mënaguñu ko présenté sax ñi nga xamante ne ñoo di fans yi mënagul def li nga xamante ne mooy visite médicale bi li ko waral nag bu sukkandiku ci kayiti xibaar ay rôle la yoo xamante ni ñii di nguuru a dañ koo dal di teg képp koo xam ne da nga jógee ci biti booy ñëwee dañ la quarantaine quarantaine boobu nag moom la war a def kii di Raphaël Varane avant ñu koy génnee di def visite médicale anu naka noonu di ko présenté ak ñi nga xamante ni ñoo di fans yi kon daal ak lu mën a xew buñ ko ci kayit xibaar yi accord am na transfert bi sotti na Raphaël Varane daañu na dem fële nga xamante ne mooy Angleterre waaye dañu koy nëbbagum quarantaine ko fileeg semaine wala boog lu ko jege mbaa lu ko ëpp soog koy def li nga xamante ne mooy présenté ñi nga xamante ne ñoo di fans yi bu dal di tàmbale li nga xamante ne mooy liggéeyam ak Manchester United. kon jamono yi Real Madrid seen ñaari défenseur yi muy Sergio Ramos ak Raphaël Varane di paire bu nga xamante ne bu ñu ràññee la ci at yi ñu weesu rawatina nag jamono yi nga xamante ne kii di Zidane moo leen amee woon. ñaar ñëpp dina dinañuy demando jamono yi lii nag xëy na kayiti xibaar yi jàpp nañu ne mën na nekk risque ci ñi nga xamante ne ñi nga xamante ne ñoo di waa Real ñaari joueurs yu mag yi nga xamante ni bokk nañ ci défenseur yi gën ñu gën a ràññee ci histoire Real Madrid ñoom ñëpp demandoo kii di Sergio Ramos gannaaw bi mu fa defee fukki at ak juróom-benn kii di Raphaël Varane def fa fukki at ñoom ñaar ñëpp ci benn at ñu dal di demandoo ki nga xamante mooy Ramos xam ngeen dem na fële ca Paris Saint-Germain waaye Raphaël Varane dal di dem fële ca Manchester United. Sergio Ramos ci la ñuy dellu si moom nag it xibaar dal moom dafa dal di am xamante ni fan yi ñu weesu rek dal di signé dal dinañ gañu xaat ci li nga xamanteni moy entraînement yi kon ki nga xamanteni moy Ramos ki di xibaare fessel nañu ne amana dina wala bok dina jouer sax wala dina outé bok li nga xamanteni moy li ñu tuddé super coupe wala bok trophée des champions bi nga xamantene dimanche bi lañu ko wara jouer mu waron dox digënté Paris Saint-Germain ak Lille ki di Ramos du ci bokk ndax dafa am blessure buñ ko ci kayiti xibaar ci entraînement nak la ko daldi amé ñu fatali leen né Ramos saison bi ñu wessu danaka man nañu wax né genn walu at bi yépp su football ko li waron di ay gañu gañu yo xamanteni mu ko doon am jamono yi nak dafa melni lolu moko daldi daldi euh, songu jamono yi muy ay galankor yo xamanteni mu ko doon dal fofu la ci Real Madrid déjà amna li nga xamanteni moy blessure ta saison bi sax tambalé gul fofu la ci Paris Saint-Germain ki nga xamante ni mooy Boateng di Jérôme Boateng nekk ancien joueur ñii di waa Bayern Munich ndax kat daal dina fay jógee bi contrat am jeexee moom Boateng moom mu lekkee di xibaar fesal nañu ne jamono yi jàpp nañu ne dina dem fa nga xamante ni mooy FC en tout cas waxtaan mu ngi xew ci jamono yi moom kii nga xamante ni mooy kii di euh, Jérôme Boateng digganteem ak FC te jàpp nañu ne dina dal di dem foofu nga xamante ne mooy ci Espagne moom ki nga xamante ne mooy international allemand bi la di Jérôme Boateng Paul Pogba nag moom kayiti xibaar daal dinañu fesal na jamono yi joxewul benn xibaar ak ñi xamat ñoo de Manchester United ndax dina signé contrat bu bees waaw wala déet moom daal di waxul leen dara loo xamante ne lu leer la ci kaw loolu ñii di Paris Saint-Germain ñoom daal dinañu gëm ne jamono yi 50 millions d'euros bu ñu ko tegee ci taabal ji mën nañu jot ci kii di Paul Pogba loolu waral na ba dinañu profité ci occasion bi ngir war ko mën a signé ci lu toll ci 50 millions d'euros ki nga xamante ne mooy Kevin euh, Kieran Trippier nekk ancien joueur Tottenham te jamono yi di évoluer fële ci Atlético de Madrid Manchester United jamono yi dal dinañu koy songu bi nga xamante ni dal dinañuy signé kii di Raphaël Varane moom Trippier jamono yi gal dal dinañu koy bëgg a delloosiwaat foofu nga xamante ne mooy ci Angleterre gannaaw bi nga xamante ne nekkoon na fa ak ñi di waa Tottenham Manchester United ñu waaye jamono yi ñu ngi songu ki nga xamante ne mooy euh, Trippier mi bëgg ko indi foofu la ca Old Trafford Chelsea Football Club ñoom jamono yi dañuy daal di song ki nga xamante ni moom la ñuy wax Jules Koundé sax kayiti xibaar yi doon nañu fesal nañ ñii di waa Manchester United ñu ngi si waaye nag Chelsea Football Club moom kayiti xibaar daal nañu fesal ne jamono yi daal danañu am waaw ki nga xamante mooy Jules Koundé maanaam jox na leen accord li des kay moo mooy ci diggante ñaari club yi diggante FC Séville ak Chelsea Football Club waaye ki nga xamante ni mooy international français nga xamante mooy Jules Koundé di défenseur bu am solo bi nga xamante ni dal dinañ jox ñi nga xamante ñoo di accord Chelsea Football Club moom pare na ngir jouer leen te it pare na ngir signé contrat boo xam ne juróomi at lay dem dina ko yóbbu ba 2026 kon waxtaan bi daal li ci des mu ngi des ci diggante ñaari club yi di FC Séville ak Chelsea ki nga xamante ne mooy Shaqiri moom nag kayiti xibaar yi fesal nañu ne moom dafa daal di wax Liverpool ne moom dafa pare ngir génn club boobu la ndax kat dafa bëgg am beneen challenge te jamono yi nag moom daal dina xam ne lii di Liverpool daal dinañu koy nangul li nga xamante ni mooy loolu nga xamante ne daal dina koy ñaan mooy ngir ñu daal di koy jaay mu daal di génn foofu leen ndax mu mën a football ndax kat bu ngeen seetloo kii di Sakiri joueur la bu baax bu mën a football mais kat moom daal di ko amul na kat bëgg na lool delluwaat ne mooy Italie ci rawatina nag club bi mooy Lazio kon jamono jàpp nañu ne kon Sakiri kon bu dee génn Liverpool amaana fële ca Italie lay dellu Manchester United jamono dañoo daal di am benn xalaat boo xamante ni jàpp nañu ne xëy na moom la ñu mën a ngir war a mën a gagné football club ci signé ki nga xamante ne mooy Erling mooy dal di jox Borussia Dortmund ki nga xamante ne mooy Anthony Martial ci kaw weccoo ak ki nga xamante ne mooy Erling Haaland ku ne xam na ni nag kii di Haaland xaalis bu bari moo ko war a génne foofu la ca Dortmund te Chelsea football club jamono yi dafa pare kar ngir génne xaalis ngir war mën a jot ci ant ki nga xamante ne mooy Erling Haaland loolu war na ba United pare na génne xaalis waaye teg ci ki nga xamante ne mooy Anthony Martial ci kaw loolu daal lañ jàpp ne xëy na ci la mën a gañe Chelsea ngir war mën a signé Haaland indi ko foofu la ca Manchester United Eric Lamela moom daal dinay bàyyi club bii di Tottenham moom Eric Lamela dem na fële nga xamante ne mooy FC Séville weccoo la nag boo xam ne dox na ci diggante ñaari club yi gannaaw bi nga xamante kii di Bryan Gil dafa daal di jógee fi nga xamante ne mooy dem ca Tottenham waaye ki nga xamante ne mooy Erling wala bokk kii di Eric Lamela dafa daal di jógee fi nga xamante ne mooy Tottenham moom daal dina dem fële nga xamante ne mooy FC Séville ca Espagne ki nga xamante ne mooy Antoine Griezmann moom kii di xibaar fésal nañu ne jamono yi Barcelone commencé nañu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy ay représentant ci kaw loolu mu dal di wàññi li nga xamante ne mooy salaire kon waxtaan baa ngi wéy ci jamono yi nga xamante ñoo représenté kii di Antoine Griezmann ak FC Barcelone ngir a a mën a wàññi li nga xamante ne mooy salaire am ndax Barcelone kat dafa taxaw temm ci joueurs yi nga xamante ni kat li ñuy fayee ko dafa cher ngir ñu wàññi li nga xamante mooy seeni salaire ndax jamono kat kees gi dafa dal di woyof lool